mbokk internet yi ñi ngi leen di nuyu di leen dalal ya ci point comme di leen remercier comme à chaque fois ci top bi ngeen ñuy top lii nag benn information de dernière minute la di génnu àdduna benn patient boo xam ne dañu ko mettre en quarantaine ci benn hôtel de la place selon information yi nga xam ne waa Dakar Actu ñi nga ko joxe patient boobu mi ngi wuyoo ci turu Dame Mangara Dame Mangara nak nekk frère ki nga xam ne moom mooy Birima Mangara moom nak xam ngeen ne li nga xam ne moom mooy coronavirus bu ñu gisee li nga xam ne moom mooy ay signe ci yow maanaam ay symptômes dañ lay jël mettre la en quarantaine pour nga bañ a wàll ñi nga nekkal selon ñi nga xam ne waa Dakar Actu loolu lañ wax wax loolu lañ daal di effectué ci patient bi nga xam ne moom moo nekkoon daam mangara mettre ko en quarantaine ci benn hôtel jëg ko defal benn test boo xam dafa négatif maanaam premier test bi ñu ko defal fekk ñu ci moom li nga xam ne moom mooy jàngoro ji di coronavirus mais dañu ko téyee foofu pour plus de sécurité li nga xam ne nag moom mooy daam mangara ñu xëy xamal nañu dafa génn àdduna toujours information bi waa Dakar ak ci ñoom ñoo ko daal di wax daal di wax ne ki nga xam ne moom mooy daam mangara sax li sabab génn àdduna nekkul coronavirus parce que test ñu ko defaloon dafa négatif ci information yi nga xam ne toftalu nañ ci ñi ngi ñu xamal ni ministre de bi nga xam ne moom mooy Wili Mangara bi mu perdre ki nga xam ne moom mooy papaam yàggul lii ñëw dooleeku si li ma métti point par ma voix di nga xam moom mooy Wili Mangara waa ministère de la nee nañ dinañ def li nga xam ne moom mooy communiqué ngir leeral nit ñi génnu àdduna ki nga xam ne moom mooy Dame nekkoon patient boobu nga xam ne dañu ko mettre en quarantaine mu daal di nekk en reste parce que aussi dana leen toppal li nga xam ne moom mooy sujet bi ngir xool lan moo sabat réellement ki nga xam ne moom mooy Dame continuer leen di topp limametti point com ngir dara bañ leen a raw notification bi nag bu leen ko fàtte moo leen di mën a ngeen mën xibaar yi foo leen mënti toll ñu leen di jox rendez-vous beneen yoon ci biir limametti point com ak yeneen information